ausubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad ñi ngi sant yàlla di julli jonante bi di sant sëriñ Tuubaa di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ca wér di nuyu bokk yi ñu fekk yépp di nuyu sëriñ Abdoulaye Mbàkke moom sëriñ Basiiru mi fekk ci tànt bi di nuyu sëriñ Basirou Fall mi nga xam ne moom lañ fekk ci fii jataay bi sëriñ Basirou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu bokk yi nga bokkal liggéey bi di nuyu bokki taalibe yi di leen siyaare di leen ndokkeel te di la tatagal tey ñaan suñu borom yàlla suñu borom may la kattan fanu gudd ànd ak wér ak yéene ji nga bëgg lépp ci liggéey ak sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne mooy li gënal yonent bi gënal sëriñ bi suñu borom defal lañ lu kawe si ñor bis bi da koo tuddee Cheikh Omar Bara Sarr bi ñu bi bi bi nga ko tuddee ba léegi mu boobu ba léegi mu koy waaj li ñuy wax li ñuy wax lépp loo yéenee def ca lu ëpp la nga ci yéene suñu borom mooy xool mooy def mooy def lu mu cee dogal li tax ñu yeex a ñëw yéene jëm yéene woon ak mbooloo ma nga xamee ne dajale woon na leen ba war a ànd ak yow ñu fekk si la fi loola la suñu borom gàntal waaye mu wax ne du tee moom dana dana dana dana dana teew ca li ca li nga wax ne na teew na bi may ñëw maa ngi ànd ak sëriñ Badara Sarr moo ko Cheikh Omar ñoo bokk lépp moo ko Cheikh Omar Bara ñoo bokk lépp muy magam mu boole maag sàddam yi ne ma jiital ma délégation bi àndal ma ak ñoom dem fekkil ma Cheikh Basirou Fall ci bis boobu nga xam ne mi ngi koy defal bis muy bisub alxuraan Cheikh Omar ne moom liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba lépp loo xam ne nii woo nañ ko ci lu jëm ci sëriñ bi jëm ci alxuraan loola mooy li nga xamee ne sawar na ca te lu ca man dana ko ca def bi may ñëw nag mu yëkkate woon enveloppe bi def ci sëg seg bi ne ma nag li muy def moom doonut lu muy tudd doonut lu muy tudd yow mi nga xam ne yow la ko séqal nee na sa diggante sunu borom ak sëriñ bi nee na yow yaa koy ubbi xam la ca nekk su boobaa nee na nga seereel ko sunu borom seereel ko Cheikh Ahmadou Bamba xam ne la mu yéene woon ëpp na lii euh, lépp loo xam ne def na ko ci daara ji tamit incha allah la mu yéene ëpp na loolu te nee na comme la nga wax ne def na ko ci daara ji bëgg na koo def ci daara ji te fas yéene woon na koo def ci daara ji te mi koy def ci daara ji nee lépp loo xam ne nii lu mu ci def la nee na nee na nee jàpp ne na asaka ja ñëwagul te incha allah nee na bu yoon jeexul wax suñu lu jeex lépp lu mu ci mën dana ko def mu yëkkati woon enveloppe bi boole maag magam jee di seex Badara ak sëñ sàdd mi ne ma naa ko teg sa loxo euh, nga defal ma ko nga defal ñu ko ci daara ji ñaan suñu borom euh, yàlla na nekk ay yoon yoon ndax daara ji miin na Cheikh Omar xam na Cheikh Omar seeral nga ma ko nee nga ma daara ji miin na ko dong yi xam nañ Cheikh Omar bi ma ñëwee sànq nii dañ maa song ñu jàpp ne Cheikh Omar moo agsi ginnaaw bi nga leen door wax ne benn la agsi na seeral nga ma ba tàyyi na ma ñëw na fi ay yoonu yoon yoo xam ne da lay bett ay xéewal du koy di ci daara ji yu ñu mën a tudd ak yu ñu tudd enveloppe bi ci la bokk kon nag euh, ñu ngi la koy kii nga defal ñu ko ci daara ji jërëjëf waaw moo leen boole woon ngeen bokk fu ngeen doon jàngee ba yàlla dogal yow nga nekk ci daara ji moom mu nekk ci daara ji mu nekk ci daara ji fee nga nekk ci daara ji fii suñ borom boole leen lépp loo nekk moom mu nekk ci lépp lu mu nekk nga nekk ci tey délégation bii ñuy wax mën naa la ci limaam ne la Cheikh Bassirou Fall ci délégation bi nga bokk ndax fu ñu masaan di dem man ak yow ak sëñ sàdd mi ak sëñ Badara ak ñeneen ñi ñooy ànd gunge ko moo tax tey jii tax ñu gën a guddee loolu ci la bokk dañoo waaj a waaj a waaj saa wu ñu waajee ba wax ne dañuy jug rek. suñu borom wane ko ci weeru koor tamit baax na. ndax da dajale ñaar muy yëngu ci alxuraan ak yëngu ko weer wi nga xam ne ci lañ ko wàcce woon kon ñi nga am sant yàlla bu baax di bëgg ci daara ji ñu daara joo xam ne suñ daara lañu ñëpp ndax ñu ngi ko tuddee waajuru alxaaji Mahamadul Bachir ñu ngi ko tuddee woon tamit ci zaahir moom la tudd ci baatin ndax loolu lépp. kon loolu lépp noonu la deme kon daal suñu Basiiru lay sant baax dara soñ bu baax rek wax ne alxuraan moom mooy toolu suñ bi mooy toolu yàlla mooy toolu suñ Tuubaa nañ ci nekk bu baax te sellal ko rek te góorgóorlu bu baax a baax liggéeyee ci suñ bi ndax képp ku ñu nekk. leer na la yaa ngi ci toolub sëñ bi lii lépp nag ànd ak nit ñu baax ñi rek moo ko waral lépp jeexi jeexit la ci ànd ak nit ñu baax nit ndax bu fekkee ne seeni i maam dañu àndoon ak Cheikh Amadou Fadal ñu dem a dem ba ngeen yëngu ci alxuraan loolu lépp xam nañ ni ànd ak nit baax moo ko waral kon nag si Abdullahi ci kàddoom ginnaaw moo fi nekk moom lañuy ñuy waxee di wax ne sant nañ bu baax a baax a baax suñ bii mi may wan léegi suñ Fall mi suñ Omar Fall may wan léegi aw kayit ni doomam mbokk na ci tare mm-hmm. daara moom waxuma la moo ko alxuraan sax waaye bu ñu ko ubbi woon sax kenn fi ubbi baax kenn rek bu fere waxuma la sax bi fekk bu fere ji waaye jàng rek baax na ndax suñ Tuubaa nee na ku jàng bisimilah rahmaani rahim rek yàlla jéggal na la jéggal say waajur jërëjëf dañu doon jàngal kon bu ñu fi jàngoon rek daara ji daara daara daara jàngi nii loolu lépp doy na waxumaa nag ku fer ji ku fi mbokk alxuraan waaye ñu fi mbokk alxuraan kon loolu dara dara féetu ko kaw kon yàlla nañu yàlla gën a saxal baax a baax. alxuraan nag daara ci boppam de barab boo xam ne kenn moomu ko maanaam kii nekk ci biir daara ji ñu naan ñu naan ko borom daara ji kooku dafay nekkal nit ñi rek maanaam mooy ki leen ci biir daara ji. waaye moom mi nekk ci biir daara ji moom nit ñi ñoo bokk yam mën naa am sax nit ñi ñoo ciy gën a jariñu kon nag loolu liggéeyam ñëpp la maanaam li war boroom daara ci daara ji moo war nit ñëpp ci daara kon nag lu waaye jëf ci daara mu néew mu bari sa bopp nga ko jëfal waaye nag boroom daara ji moo lay sant ci turu yàlla ci turu ginnaaw moo fi nekkal ñëpp moo lay sant naa la jërëjëf kon nag ñëpp dañuy liggéeyal yàlla ci ndax doomu aadama bi lu mën a jëf rek lay jëfal yàlla kii mën naa jàngale kii mën naa dimbale kii jàngale kon loolu yaatu yaatu yaatu la kon ñi ngi sant yàlla bu baax daal di ñaan yàlla barke lépp yàlla def ñu teewe ko déwén te daara ji yàlla yokk bu baax a baax yàlla barkeel mboolem daara daara mën a nekk ndax loolu rek mooy liggéey bi ñu ngi sant yàlla bu baax baax kàddu yi xam naa du gudd dañ jox suñu mu ñaan rek jërëjëf asalaamaaleykum rahman rajim alhamdulilahi waliyu saalihin wala aqibatu lil mutaqin wala udwana ila ala salimin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw ba nu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax seexu naa seex ahmadou bamba xaadim rasul di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu tewér noo ngi sant bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir sunu sëriñ sunu baay sunu yaakaar yi adduna ak alaaxira di ko ñaanal mu yàgg fi loolu di sant bu baax sunu ñaari way jur di ñaanal suñu way jur bu góor yàlla na ko suñu borom dolli ay leer te dolli ko yërmande ca barsàq barke Xaadimu Rasuul waaye di ñaanal suñu way jur bu jigéen yàlla bàyyi ko fi may ko wér may ko gudd fan sant nañ ko bu baax a baax ndax lii lépp ab liggéeyam la rek lii lépp mooma nu ngi koy sant bu baax te ko ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér taxawu ko ci njaboot gi ci zaahira ci baatin ba fépp foo xam ne njaboot gi bëgg nañ ko faa yóbbu rek ñu yóbbu ko fa barki Seexul Xadiim kaddu yu gàtt gàtt lay doon ndax kaddu yu cant dong lay doon kaddu yu cant sant gi nag comme noonu ma ko waxee yàlla lañ ci diital ak Serigne Touba ak Cheikh Amadou Bassir ak sunu ñaari way waaye tamit ñu ngi sant bu baax nag way juru ndongo yi nga xam ne ñoo am yaakaar fii ci daar ji indi fi seen i doom di ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala seen yaakaar jooju yàlla bu ko yàlla tas barke alquranul karim bis bi jàpp nañ ci bu baax a baax a baax bis bi daanaka mën naa ne la waajur yi ñoo def lépp man defuma ci dara parents d'élèves yi ñoo def lépp ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal kenn ku ne sa doom yàlla na nga yàlla na nga dund bañ lay bañ lay woo fii naan la mokkoon alxuraan nga ñëw fekk ko barke alxuraan waaye nag di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo may jàppale ci liggéey bi muy jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji te ñoom ñëpp di doon samay rak sëñ Amsa ak sëñ Fallou ak sëñ Ilimane nga xam ne ñun ñëpp benn leen ñun ñi seq daara ji duñ duñ ñaari jëmm jenn jëmm lan ndax kenn ku ne ci nun rek soo ko jamee moromam mooy nàcc kon boog maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala may leen gudd fan may leen di sant mbooleem waa bi yëpp di sant jàngalekate alquran yi nga xam ne bi ma wootee ñun ñëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw teewe bis bii yàlla nañ ci dajee ngërëmal seen Tuubaa di sant bu baax nag gaay yi nga xam ne ci suba ba tey ñoo fi toog tée micro bi ak weeru koor gi ni ma tee sëñ Mañis sëñ Moor sëñ Fàllu ak sëñ ab di Diop maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye tamit comme ni noonu ngeen ko waxee rek bis bi moom Cheikh Amar Bara laa ko tuddee moom laa ko dara jaale li mooy jëfam joo xam ne yàgg na koo jëf ci daara ji sëñ Moustapha eh, sëñ Badara sëñ Sadda yéen ñi nga xam ne yéen la yónni doy na sëkk ndax sëñ Amath sama diggante ak moom yéen ump leen su ma ko tuddee bis bi mu ñëwee ak mu ñëwul laa yamal rawatina bim mu yabalee magam ju mbokkal nday ak baay yabal la yow sëñ Moustapha yabal sëñ Sadda kon sama xol sedd na bu baax moom jëfam ci daara ji daa jiitu lii eh, ndax mat matelas yii gone yi di tëdd yëpp moo ko jënd. basang yi gone yi di toog di jàng moo ko jënd xale yi daf naan leen su ngeen toogatee ba bëgg lekk yàpp wax leen ko sëñ Bas rek bu ma ko waxee dinaa leen jëndal ab gàtt te loolu jëf na ko jëfati ko kon yàlla na yàlla yokk wërsëgam yàlla sàmm ko yàlla aar ko barke sëñ Touba Mbacke noo ngi sant baax it mbokk yi sëñ Omar Seck yi nga xam ne def nañ délégation ñëw ci bis bi ngir rendre hommage bu ma ko ci rendre hommage moom seen Omar Seck ak ay jëfam yoo xam ne yàgg na koo jëf ci daara ji maa yàlla na ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala dolli ay leer ak ay di ñaanal bu baax sama euh, baay bi may ci rendre hommage di baay sayer yàlla yërëm ko doole ko ay leer di sant ñëpp nag waa koñ bi di sant naa Cheikhouna Sylla Serigne naa Sylla mooy borom kër gii ma taqaloo sëñ naa sëñ naa yàlla dafa dogal man xam naa ne alxuraan da doon nelaw ci moom ndax fan yee ci ginnaaw. dama amoon problème fu ma nekk fi ma ne woon borom da koo soxla ci njëkk ak teraanga woo ma wax ma ko ma bëgg fu ma nekk àgg na ci Seexuna Silla àgg na ci bàyyi ab liggéeyam bu xëyee suba yam ma ci otoom di waral man Touba di waral man koñ bi ngir wutal ma kër billaahi loolu nag doon lu ma marqué kon yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér daara ji bi ñu léegi moom moo leen di jox courant fii lu courant gi ci biir këram la jóge jëm ci daara kon yàlla na yàlla yokk wërsëgam yàlla sàmm ko yàlla aar di sant bu baax sëñ Ilimane Diouf mbaar mee ca daara jee mbaar mu bees mee moo ko fa mbaar def ci xaalis bu bari xale yi fa lañ toog di ko jàng te wax naa bës bu set ab boolu ceeb dana jóge këram ñëw ci daara ji bal sax moo ko yendul boppam di ko indi kon yàlla na yàlla yokk wërsëgam di sant bu baax waa kër njabootu sëñ Bachir moom seen Fallou gi fi teew gépp sëñ Moustapha ñëw ne fi jóge na fi léegi sëñ Abdoulaye Mbacke mi ngi nii toog bokk ci parents d'élèves yi ndax am am fi doom ciy waaye nag teewal fi teewaay bi sëriñ Bachir Mbàkkeem sëñ Fall sëñ Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu di la di la wax ne sa jataay bii xàmmi wuñ ko jataay bi sëñ Bas di sant njabootu sëñ sëñ Bas gi fi teew jëpp di nuyu bàjjen wàlla mbay ak ak njabootam gépp sëñ Amad Daama nga nee jóge ba Dakar sëñ daara yëpp maa ngi leen di sant ba gis naa ñëpp sëñ Aliou Niang di ñaan nag ci barke sëñ Touba yàlla nañ ko teewal ay déwén di wax nag di sant bu baax samay soxnay bopp yi nga xam ne yàlla dogal na ne ñoom ñoo may jàppale ci daara nga xam ne lu am lu am ci daara ji lu metti metti maa ñoom ñoo koy ànd bu dee lu neex tamit maa ñoom ñoo koy ànd muy soxna Ayda ak soxna Ndey Siin ay jàmbaar lañ lool xale yi xiifuñ maruñu tilimuñ ndax ñoom ñaar liñ fiy wut si fii yàlla na leen ko yàlla may ci barke sëñ Touba maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yu nuyu sëñ Xalil Mbàkke mi nga xam ne mooy doogi egsi di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban kaddu yi sant dong la woon foofu laay wàccee kaddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon su ko defee dañuy dox rek délégation Cheikh Amar su ko defee incha allah balaa sëñ bay ñaan mu ñëw sànni ay kàddoom sëñ man